mbokki julli yi as sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñoo ngi leen nuyu nuyoo ñu ngi suñuy xol. ñu jëm si ci yéen. di ñaan ñu doolee yàlla. moo ñu may fekke fekke waat. kon lan doolee góorgóorlu. bari na rek weeru koor jeex na. dara waratul. lu wala lu mu bàyyi woon ci lu bàyyi ko wala lu mu bàyyi woon ci weer koor ñu bëgg koo defaat. te te yàlla aayul lépp. ñu gën doole caa góorgóorlu bu baax a baax. doole boole suñuy xol. bëggante bu baax. soppante bu baax. doyloo doylante bu baax. jikko yi nga xam ne moom la suñu borom tàggee rasulullah. jikko yi nga xam ne moom la suñu borom tàggee rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. makaarimul axlaaq lu góorgóorlu ci kenn suñu kattan. lu góorgóorlu góorgóorlu kenn suñu kattan. ndax loolu suñu diggante. ndax noonu suñu diggante ndax noonu suñu diggante. suñu diggante ñun jaam ñi. suñu diggante ñun jaam ñi. ca lañ koy wéralee. ca lañ koy wéralee. kon ñu góorgóorlu ci baax a baax. ku ne kenn ku ne. ëmbal sa morom. ëmbal sa morom. aw yiw. ak doyloo ak doyloo. ak wóoloo. te ku tane sa morom. te ku tane sa morom. nga dimbali ko. ñu fay te wéy ci loola. buñ ci maasee. suñu borom dana dimbali loolu rek mooy li am solo